wasalaatu wasalaamu ala albashir nathir sayidina muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabiina lahum bi ixsanin ila yowm ddin amma baado ayuha alixwa fi ljumaati almaadiya ajmalna alqawla an taalimi alislam bi annaha xaqaidun wa cibadatun wa mucaamalatun wa axlaaq wa min huna alyowma nabdau alxawda fi tafsilati dalika almujmal falxaqida hiya ma numinu biha imaanan jaasiman wa qawiyan wa hiya shay alladi yajibu an yakuna alwaasi wa daafix li kulli ma yasduru minna min xawlin wa amal walladi yajibu an yatajassada fi jami an yatajassada fi jamii ma yasduru minna min xawlin aw amal wa min huna nara an asiixata algaaliba allati yuwajjihu biha allahu subhanahu wa taala alxitaaba wa yusdiru biha alawaamira wannawaahi hiya ma yustacmalu fiha nida muqtaranan bi kalimati aliman yaqulu subhanahu ya ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulih walkitaabi alladi nassala ala rasulih walkitaabi alladi ansala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmi al axir faqad dalla dalalan baida wal iman fi taalimi diini islami awalan huwa al iman bi wujudillahi subhanahu wa taala wa bi wahdaniyatihi wa uluhiyatihi wa rububiyatihi wa bi annahu al qahiru fawqa ibadihi ثانيا الإيمان بأن له رسلا من عنده سبحانه ومن تلك الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا الإيمان بأن له ملائكة بأن له ملائكة وهم عباد له سبحانه خلقهم من نور لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رابعا الإيمان بالكتب بأنها منزلة من عنده سبحانه وأن ما فيها حق ومن تلك الكتب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن خامسا الإيمان باليوم الآخر بأنه حق وأنه آت لا ريب فيه والإيمان بما سيقع فيه من ثواب وعقاب وجنة ونار سادسا الإيمان بالقدر وهو الإيمان بأن كل ما وقع في سر أو علن بعلم الله وقدرته وإرادته خيرا كان أو شرا وأنه سبحانه هو الغالب على أمره لا يمكن لأحد أو لشيء أن يتصرف في ملكه أو ملكوته بغير إذنه سبحانه yaqulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam fi ijabati an an jibril alayhi salaam indama saalahu an al iman yaqul an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al axir wa tumina bil qadar xayrihi wa sharrihi wa yaqulu cheikh ahmadul xadim radiallahu taala anhu wa arda fi tasawudi subaan mubayinan maana al iman fi l islam imanukum an tuminu billahi wa bilmalaikati jundillahi wa bi jamihi kutubihi al munassala wa yowmihi l axiri yow mi salsala wa bi jamihi rusulihi wa bil xadar min xayrihi wa sharrihi haysu sadar ibadallah fal nattaqi llaha subhanahu wa nuraqibhu fi jamihi ma yasduru minna min niyatin aw xawlin aw amal nastaxfiru llah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum wa natubu ilayhi tawbata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala nafan wala mawtan wala xayatan wala nusura aqulu qawli hada wa astaxfiru llaha li wa lakum wa lisaa'iri almuslimina fastaxfiruhu innahu huwa alxafuru rahim